bonsoir bonsoir sama gaay bëgg naa leen bu baax di leen ziar te samit di leen delloo ziar dal leen jàmm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 et comme d'habitude c'est votre très cher c'est Kenza mais gars yi man nan laa leen nammee nii namm naa leen lool nag mais tay dama xawoon tawat parce que voix bi dafa deewoon damaa soj au fait <laughs> damaa soj loolu le mais ne vous inquiétez pas votre c'est Kenza va très bien léegi moom alhamdulilah mais nag gars yi boo leen xoolee xaw nañoo tardé trop ci bir game bi parce que amna yu bëri yu fi jotta a jaar te waxuñu ci mais tay ci yoy lañuy wax juste comme genre jotta ay info lay doon ko len lu jotta am ci bir game bi pour ñu gul lolu dem xoliko mais avant ñuy wax ci concept bu bees bobu intitulé jotaay info voyez s'il vous plaît vous abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 bëri na bruit dé radio bi Lux FM ci boppam mo bëri bruit. <laughs> Alors, je disais, veuillez s'il vous plaît vous abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et d'activer aussi la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent. Et tu? nous allons intro Let's go! comme ni ma leen ko waxee rek ci intro bi bon nee naa leen tey euh, info lay doon juste wax quelques infos yu fi jot a jaar ci yooyu nga xam ne jaar na ci biir game bi te wax ñu ci woon alors premièrement nous avons commencer ci ben jeune talent ben rapport bo la fait mais dafa dugg ci game bi dafa Pipoza l'enfant chéri de Capsi. alors sama gars bu len fatiliko Pipoza temps est passé amna ci vidéo bo xamné ci et en plus ci bir vidéo bobu nañ Pipoza a gars EP boobu nag Pipoza génnee na ko depuis le 22 juin passé et ce EP est intitulé dafa jot. alors te boo leen xoolee EP boobu comporté na sept titres te am na ci featuring ak KMT am na ci featuring ak Kool ak ñeneen aussi te franchement parlé, man xaw ma Lux FM ñoo bëri wax xaw ma ci suuf moo am bruit. de toute façon affaire bi jaaxal parce que yeneen DJ yaa ngi fii si biti wax bruit baa ngi am ci suuf mais bon je vais gérer ne vous inquiétez pas alors gars je disais franchement assurez notre job parce que xale la Pipoza xale la gagné son rek dafa metti waxatuma as gagné nga génne projet projet pour un ne pile. la yombul c'est pas du tout quelque chose de facile bon man personnellement dama naan ko félicitations à toi Pipoza affaire bi amul secret au fait job rek la boo amee talenté jooboo doo dem fenn. boo amee talent liggéeyoo doo bouger maître Don Boy taxul nga bañ a nekk meilleur rappeur juste ñenn ñi nga xamante ni déglooguñu EP wu boobu dama leen wax ngeen daw gaaw déglu ji ko c'est disponible sur sa chaîne YouTube. ok sama gars yi bu ñu ci Pipoza nag dañuy jàll ci euh, beneen daanaan beneen rappeur koo xamante ni réel ci biir game bi talaawam talaawam bokk mën rabam. ak liggéeyam ken dootu ko laam-laamee muy kan muy Riifou l'enfant chéri de Kaolack alors gis ngeen Riifou aussi dem na ba benn ins gëjoon nañ koo dégg dem bu public bi ci moi moo doon laaj Riifou naan ana suñu album et même pas quatre mois Riifou ñëw euh, génneel ñu ben track muy euh, BBGG JS1 qui signifie bala benen gis-gis Yagul dara aussi riifu ñëw dooraat ñu benn pré album intitulé balaa beneen gis-gis doon pré album boo xam ni six track la am na ci featuring ak Ngaaka Blindé am na ci featuring ak DJ balaa beneen gis-gis nag nekk na projet boo xam ne riifu assuré na ko naay sax ku xam riifu moom xam ni du dóor lu nooy ku xam riifu aussi xam ni moom mu ngi ak lépp lu rapport war a am lépp la yor mi moom mais aussi publique bi léegi mooy loolu du dañuy xool ku leen neex may ko seen bopp mais nag riifu lu mu génnee nas na trop ñu bëri album lañ doon xaar ci moom mu ñëw jox leen pré album léegi pour ñu dégloogul pré album boobu nga xam ne riifu génnee na ko ici intitulé balaa beneen gis-gis gars yi dem leen gaaw déglu ji ko ngeen wéet tamit album bi parce que xam ngeen riifu moom comme ni ma ko waxee rek duñu génnee lu nooy moom moo fu dëgër rek lay génnee ak ñun nañu wéeg album bi parce que riifu moom xam naa ne mu ngi pare album bi alors sama gaay j'espère que voix bi baax na de nee naa sama baat bi dafa dee mais léegi ça va gis ngeen ni ngeen di gis nii voix bi xaw na tane de fii xaw naa dee mais on oublie maa ngi tane ok sama gaay buñ jógee ci riifu nag dañuy jàll ci beneen rappeur beneen jeune boo xam ne mu ngi tudd Abdou Ndiaye alias Sky Ndatigé from Thiès élément chambre 9 record alors sama gars Sky dafa génnee son intitulé Mujani xam ngeen Mujani ay waay kuy laala ci porte bi di jël métal mënoo ma toog si biti nga bàyyi ma ngir yàlla soo tëtëtë waa rajo bi dañ maa sonal billaahi mënuñu ma may jàmm oh alors gars je disais Sky dafa génnee benn son intitulé Mujani clash ci ki nga xamante ne nii moo di Mojo lu tax nag mu clash Mojo xam ngeen ko parce que gis ngeen temps yi passé Mojo moo génne woon benn son intitulé Terminator clash plus de sept rappeurs comme BMJ Ka Prep Dip ak Ndobin ak Kalpon yemul foofu mu jël oto dugg ba biir Thiès jëlaat beneen oto dem ba chambre neuf record clash ñi fa nekk ñëpp waaw ñi fa nekk ñëpp laa leen wax comme Tagisin ak avocat ak phonétique bàyyiwul kenn ci waa chambre neuf record léegi nag comme Sky mi nga xamante ne ni chambre neuf record la nekk te moo jóg clash na waa chambre neuf record Sky caatu chambre neuf bi dugg studio clip ko tontu moo jóg gars yi mu doon nag tontu bu dal tontu boo xamante ni dal na lool sax parce que ñëpp ngi ciy wax. alors boo dégloo son bi mu ngi naan ko chambre intouchable ak citizen Mike. riibaa ci yow et di nga ko fay ak dafa góofe lu taaru firndeel baa ngi salataal clash bu dal la ñu seetaanagul wala dégloogul son bi gaaw dem leen ngeen xooli ko moo Mojo dina tontu ou pas man moom je sais pas mais de toutes les façons Sky def na son tontul boppam tontul waa chambre na fricoor yépp xam naa nag après dinañ ci def benn vidéo boo xam ne spécial lay doon ok sama gars yi ba tey ci concept bu bees bi de Josaay info <laughs> avec la sister Kenza alors bu njëgee jógee ci Sky Ndathigué nag dañuy jàll ci beneen rappeur beneen daanaan muy Dip Doundou Guiss alors sama gars dafa am benn rumeur buy daw temps yi ci réseaux sociaux yi et ça concerne le rappeur Dip Doundou Guiss parce que Dip Doundou Guiss moo def euh, publication Twitter ni j'arrête bientôt. léegi nag wax boobu moo jaaxal ñu bëri man mi personnellement jaaxal na ma ah wax boobu jaaxal na ñu bëri Dip Doundou Guiss day bàyyi rab wala rumeur la bëgg rek loolu moom jaaxal na ñu bëri mais boo seetaanee aaru mbedd jour bi album LNN bu Dip Doundou Guiss bi génnee mu ngi doon wax naan Pape Sidi Fall dina wàññi tuuti ci rab bi mais waxul day bàyyi carrément nag parce que am na leneen lu mu war a def aussi pour man li mu pim nii taxul ni day bàyyi rab parce que jeune yu ko mag ñu ngi fii ñoo xamante ne ni. ñoo nekk ci game bi te ba léegi ñu ngi rab nice en plus moom nekk na koo xam ne tax na ñu bëri dugg ci rab bi et am na leneen lu bëri lu ko dese ci carrière am mu ngi préparé Djib quinzaine quatre ak euh, beneen album war na ko pare de toute façon lu bëri dese na ko ci carrière aussi. mais nag gars yi je vous boobu mu def jaaxal na ñu bëri. léegi nag sama gaay yéen lay laaj ku nekk nan ngeen gisee li nga xamante ne nii Dip Doundou gis publier na ko ci Twitter bi noo leen gisee affaire bi day bàyyi rab wala rumeur la bëgg wala dafa juum à vos claviers man seen si sa Kenza bàyyi naa mu tëmb de ay <laughs> ca lii laa leen indiloon tey ci seen concept bu bés bi intitulé euh, jotaay info juste dañuy dajale lépp. bépp nouvelle bu génn ak bu war a génne ci hip hop bi n'empêche tamit keneen ko bëgg ñu jàllaleel ko info mën nañu ko envoyé ci numéro bi ma leen di bàyyi ci suuf par whatsapp boo leen ma ko envoyé rek man seen si sa Kenza dinaa ci jot ah. peace and sama gars yi jàmm ci ñëpp yàlla ñëpp am jàmm di leen wax na namoon naa leen lool nag mais votre si sa Kenza est là ciao ciao bye bye.